géejawaay wala Pikine parce que Ravin defe naa ne géejawaay la nekk waaye bu la Ravin tamit sa xel day dem ci Pikine suñ tuddee Pikine nag tey balaa ñoo sori li ñuy def mooy ki nga xam ne moom moo di moo Modou Niang nekkoon promoteur bu mag ci làmb depuis quatre-vingt-quinze ba deux mille vingt-trois muy tëgg làmb yàlla jël ko mu mel ni nag samedi bi passé la looloo am suba samedi war a nekk bés bu dellu seen mais tey nag bu ñu fi dajee ak structure bu bees indil ñu combat bu bees muy Ibou balaa ñoo sori mooy li ñuy ne def rek mooy ku fi nekk rek man moom du ma wax une minute de silence xam nga lu may wax Faatiha fukki lixlaas ak benn ñu ñaanal ko Serigne Modou Niang yéene ko ko ak bépp julli bu tëdd ci suuf yàlla jéggal leen xareel aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak imam fii ci Aslem wala fii ak ñëpp ñu dëddu ci rek bismillah gars yi Faatiha ak fukki lixlaas ak benn rek ñu yéene ko bépp mbay mu woy dawloo amin yal na yàlla nangu ñàmbul ñaan yi barke nabi sallallahu alayhi wasallam yal na yàlla ñi tudd ñëpp mu mel ni tey nag fii ñu nekk nii moom mooy Ravin Ravin nag ñu ngi nuyu kii moom kër gi parce que vraiment gis nañ ne ah mu ngi may waa làpp opportunité wu ñu man fee daje te nekk nag benn cadre boo xam ne pël cadre bi rafet na trop macha allah man dama ko doon romb rek xamul sax ne Ravin nii la mel ki ñu fee di tey nag mooy Ibou Laye nag nekk benn jeune xam ne nii ku ko xam xam ko ak Modou Lo ci làmb njàng-njàngam soo mokkalee bersa daara seen xaritoo ci làmb wala seen xaritoo ci dund leneen la waaye moom na dem na ba tey mu créé benn structure bu nga xam ne nii daa commencé nag di dëgg làmb bëri ki dem ku ne gis na Youssou Ndour ak Mor Kang Kang muy combat boo xam ne defe naa ñu ko bëggoon bëri na ma yàlla dogal ko ci loxoom tey mu indiwaat combat boo xam ne tamit defe naa ñëpp a ko doon coow bi ki nga xam ne moom moo di Zarko daane Ada Fass te ne tëna tij ne du génn Ndakaaru ñu ne Ndakaaru ñu ne ko mu ne Gris Bordeaux ñu ne gars yi ne kon am na keneen ku nekk ku nekk Ndakaaru Lagos am na contrat yaa ngi dégg kon ku fa nekk Diène Kaïré amagul contrat ñu ne kon nañu jëli Diène jën Kaïré bu sumbe jub jën Kaïré doomu suñu papa Boy Kaïré ñu koy nuyu mais nuyu tamit la promoteur la grand promoteur Baba Diaw ca production ñu lay jaar bu baax a baax a baax defe naa tey Ibou Laye loolu la indi tey tegal ñu ko Diène a ngi nii à droite euh, borom doo xool a ngi nii à gauche ah borom noonu laa koy wooyee mais balaa may sori naa bàyyi Ibou Laye mu maa ngi lay nuyu déjà mais balaa nga nuyu mu nuyu presse tamit presse en ligne bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaw presse en parce que fu mu méttee rek yéen ay teew waaw gaal yaag géej gaag mu dox maag ngelaw la sedd ba lépp yéen la car rapide njaga jaay ya presse en ligne bi la lu ñu bëgg mu siiw rek yéen la kon jaaraama pël Fatma Modou Anta Thier bu ma limee dinaa juum naa euh, kële nu mu Ami Collé ñoo bokkoon gaal ga matu yéen tout asalaamaaleykum sëñ Babacar maa ngi nuyu sénégalais yëpp di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay vraiment di am kontaan bu baax seen teewaay fii si mbir bi ñu bëgg def fii maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp sama yaay di nuyu sama yaay di gërëm sama yaay di sant sama yaay. maa ngi sama papa maa ngi ñaanal a maa ngi nuyu Parcelles Unité di nuyu Sénégal gépp maa ngi nuyu waa Tivaouane di nuyu sama sëriñ sëñ Mbaye Sy Abdou ak njabootam gépp teg ko si loxo Moustapha Sy di nuyu Sénégalais yëpp di bëggee ñëpp di leen wax ci daal asalaamaaleykum dugg si naa si làmb. di ñaan Sénégal yëpp mu jàppale ma ñaanal ma am si réussite totale. na ko yàlla def. parce que parce que tamit ku gis li ma tàmbalee nii xam ni am naa courage bi te bëgg naa li may def te ragal moo fi ko jëm. Mm-hmm. donc bàyyi naa ko si loxo Sénégalais yëpp loxo ak làmb yëpp. sama ñoom Papa Begaay Mbaye ñoom Malick Thiandoum Lamine Samba. Mm-hmm. yéen yéen presse maa leen ñaan. Mm-hmm. xamante nañ. xamante nañ bu yàgg. donc dama nekk ci biir rek duggaat ci biir. Mhm. du ma ci gànn. kon maa ngi sàkku seen ñaan bu baax a baax a baax incha allah. Mhm. di nuyu sama ñaari champion yi di nuyu Diène di nuyu Zarko di leen gërëm tamit di leen sant parce que tey moo na met sama côté mais comme li ma wax rek dañoo xam ne maa ngi ci biir ñu ñoo mbayam na lépp Zarko bi ko woowee wax dëgg yàlla gërëm naa ko sant naa ko Zarko waaw yombalal na ma ko parce que nee na ma saay ko ah mu ne man dëgg yaa ko bëgg ma ne ko ah man du métti te ni moo waxee du métti métti moom la ko defee métti jigéen mii bi ma ko woowee jigéen ma na fi salle olympique ak salle mii hmm. du la waaw kay eh, waaw kay tey sax comprendre nga <laughs> <laughs> moom mii tamit bi ma ko woowee mu ne ma ah Ibulaay de combat bi dëgg am yaa ko bëgg mu ne ko ah mu ne ma du metti de incha allah boo déggoo paa bi maa ngi koy woo léegi bu dee yaa ko bëgg moom te pare wax dëgg yàlla du metti ci man bi ma bi ma woowee paa bi tamit man ci ma woo paa bi noonu la ko paa bi yombale naa leen sant naa leen ndax ah, na lépp. waaw kay baax ko ñoo xuuf ba si kanam. am na solo mais Ibou bala balaa bàyyi dama lay dafa am lu ma lay laaj Ibou Laye da taxawal Mor Kang Kang ak Youssou Ndour ñu ne déet na waaye nga indi tey Zarko ak Diène Kaïré mais man tam dama am lu nga xam dama ko dégg wala ma loxutu luñ tu ko ba am ko te lu leer la ni Modou Lo le ak Boy la càppaajul de Pikine boobu combat ko doon dox bu danga ko bëggoon ba soroon nga ci loolu ci mën a leer Sénégal Babacar xel day fat sax mais balaa may tàmbali dara tamit waroon naa nuyu sama champion boobu di Modou Lo di nuyu mbëru parcelle yëpp ñoom tamit mention spéciale jàppee nañ ma bu baax a baax a baax ba li ma nekk nii tamit ñu ma si dooleel bu baax a baax a baax muy Modou Lo muy Papa Sow Papa Sow barke billaahi ba trois heures du matin ñu ngi wax ci combat bi fekk na combat taxaw na bu yàgg mais moo may conseillé demee lii ngay defee nii ngay defee nii nga comprendre nga moo tamit boobu léegi lekkul naanul nalawul boole ko ci li mu nekk ndax xool fi ma jëm comprendre nga di ma suivre ñoom ñëpp yéene ma ñu yéene ma daal ma am si réussite donc maa ngi leen di gërëm di leen sant ñoom ñëpp di nuyu sama suñu maam Père Ba di nuyu Mansour Ba moom ci mention spéciale bépp jàppale buy jàppale rek bi moo koy jàppale waaw. combat mu booy ñaan da ko bëggoon. solo woon naa si parce que su ma taxawalee Mor Kankang Youssou Ndour te yàlla dogal ma ñëw si Zarko Dieng Kayre kon ku ñu ni yàlla doon ndox Modou Lo wala ko mën a weddi waaw solo woon naa si trop te ba léegi bàyyiwuma tamit. Hmm. waaw parce que gis naa ne affaire bi xaw na xaw na xaw na man ba léegi dégguma benn déclaration quoi. <laughs> pour yow amagul loo en tout cas ah. bëri le douze. waaw en tout cas bu combat bi yéexee boobu pare <laughs> kon loolu leer na léegi joxal xaar ma jox Sarr mu nuyoo Sarr ñu ngi lay bëggee am.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 ñu ngi koy euh, masawu di ko di ko masawu képp kuy doomam di leen ñaanal aussi ñu yóbbu seen seen waajur ci jàmm denc ko ci jàmm di wax ni maa ngi nuyu l'ensemble zone 7B de Grand Yoff di leen xamal ni di leen yëgal ni euh, doomu Grand Yoff doomu zone 7B doomu xaar yàlla doomu euh, Médina fas Gueule Tapée fukki penc yeeg ñaar seen doom seen rakk seen xarit ah. borom doo xool comme ni ko sa waay di waxee amaat nañu bés ñu nag euh, Diène Kairé di sàkku ñaan ci ñëpp ngeen ñaanal ñu yàlla defal ñu ndam lu sedd guy comme niñ ko defee woon suñu làmb yee passé di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi écrit mbooloo di leen wax ni am nañ combat combat ak euh, taxaw na te dañuy def nañu defoon rek di képp koo xamante ni si staff bi nga bokk di ko wax ñëpp bàyyiwuñu kenn comme ni message bi jàllee ci whatsapp yeeg lépp comprendre nga ñu ngi leen koy yëgalaat bàyyi ñu kenn képp koo xam ne dirigeant nga nekk écrit Grand Yoff mbooloo ñu bu ñu limee dañuy juum Jibi Samb Dia Omar Ndiaye Issa Dieng ñoom AS di leen wax yéen ñëpp am nañ làmb ngeen ñëw jàpp ci bu baax a baax comme ni ñu doon def ñu demaat yàlla mayaat ñu ndam ñu si di ko yëgal aussi tamit képp kuy doomu Grand Yoff rek képp kuy bëggee sarko koo xamante ni am nga nattu dafa dal sa ginnaaw nga nekk ci biir muy ñi nekk ci biir yëpp waa Diène bi ñëpp ñu ngi leen di yëgal suñu combat taxaw na ak Diène Kaïré ah, ñu ñaanal ñu yàlla defal ñu ndam. Eh, di nuyu ñëpp nag di nuyu aussi particulièrement sama famille. Ah, di nuyu sama maam di nuyu sama yaay di ñaanal sama papa fee mu tëdd ci àllaaxira yàlla na suuf sedd ci kaw ba mu xippee àjjana ak eh, bépp baay bu mu fa fekk. di wax ni zone set b dañ leen waaja Ibou Laye nag moo woote te si Laye de spécial ci man. man munuma wax sax ci moom duma ko sax jéem parce que man nag moom ak jéem kay sax wax li ñu dund xam nañu donc euh, am na loo xamante ni nag du du waxu mbedd du wax boo xamante ni dañ koy teg ci mbedd bi di nga wax ni kontaan nañu ci bëreel la Ibou Laye man Zarko lii yàgg naa la ko wax boo xoolee yàgg nañ ci waxtaan man ak yow ma naan la pourquoi pas war na mën a nekk parce que ñi fi nekk ñëpp xam dàquñu la ko te yow yaa na a yéene nit ñi. di la ñaanal li nga sumb nii yàlla na la ko suñu borom bàyyi nga àggaleeg sa sago ba li nga ci bëgg yàlla defal la ko yow ak sa njaboot ak ñëpp ak képp koo xamante ni bëgg na la jàppale ak képp ku topp sa ginnaaw di wax ni aussi di nuyu suma adversaire Diène Kaïré rek di nuyu ñëpp ñi fi nekk bi di kër gi aussi borom kër gi ñu buntam waa làmb mën fee ñëw tey di leen xamal lii mooy làmb affaire noble la affaire gentleman la làmb du xuloo du werante du xasante làmb nekkul loo xamante ni day yàq jeunesse làmb nekkul loo xamante ni day delloo dëkk ginnaaw parce que suñu sport la sport national la dëkk boo dem am na sport am ñu ngi ciy yëngu jeunes yi ci ngi wu ku ci nekk li nga ci bëgg def yaa ngi koy def kon pourquoi pas ñun waa ñun sénégalais ñu bëgg rey làmb imaginez boo reyee làmb Sénégal ñaata jeunes ñoo fi nekk euh, war a galère kon donc li laa war a sori dañuy wax population sénégalaise bi nañu ubbi seen xel te xam ne làmb nekkul lu yàq jeune ni mbër mu ne am noonu la footballeur mu ne am noonu la basketteur mu ne am noonu la fecckat mu ne am noonu la leneen la leneen mu ne am kon li laa war a sori làmb ji moo fi nekk loo xamante ni mooy fay mooy moo tax doom di yóbbu yaayam màkk moo tax doom di tabaxal papam kër donc nañ fi bàyyi làmb ji mu dem ba ci kanam kanam foofu laa yemagum en attendant di nuyu sama gars yi ma àndal ah. aara baaxum Biengolo ak euh, Gandigal di leen nuyu bu baax a baax Doudou lenn laa lay ñaan xaw ma dina mën a nekk xaw ma du mën a nekk combat balaa mu doon gën a neex tey man nga boole rakk jéen kayre bi ak sama rakk bi ñu bokk même journée. <laughs> wuyu ma làmb rax làmb nekkatul combat de làmb léegi maani la. ko. làmb làmb léegi làmb léegi xaalis la làmb xaalis la dañ ñëw pour liggéey yow boo jëlee avance kii jël avance kër gën a neex rek waaw kër gën a wàcc. <laughs> waaw xam nañ lu tax ñuy daw sama lii de Ibrahima sama doom yi viétaay mooy buuru kaaf buuru kaaf ni nii. kon fii ñu gis kii moo tëj waa kaso bi ñëpp moo leen bël kii làmb bu ñu teg kaso bi moo ko jël ñuy soog a génn xam nañ lu tax ñu koy moytu duñ ci ñoom làmb ji ñu moo ko jël mi ngi soog a génn mi ngi soog a génn même pas un mois làmb yi ñu teg ci kaso bi moo ko jël kii jëmm ji buuru kaafu ngi nii kuy jël ci biir doo bàyyi ci biti ah. am na solo ci ko di bagage nooy na waar. Diène ñu ngi lay nuyu bàyyi la ko nuyu Sénégalais yi. Euh, maa ngi lay fay Babacar di la ah. ziar di nuyu ñëpp ñi fi teew di nuyu Sénégal yëpp di nuyu monde làmb yëpp di nuyu waa place bi ñu nekk nii. vraiment waaw waa Ravin di leen sant ak xam nga niñ nangoo tijjilee seen buntu làmb. Mm-hmm. vraiment ñu leen di ñaan yàlla place bi dem dem ba romb seen jotu daal. di nuyu ñu ma àndal ko ci mel ni ñoom xaaf El Hadj sama papa yëpp di nuyu sama père ñoom Baba ñoom ñëpp di nuyu sama ñoom copain Prince di nuyu Mbagnick Mbagnick. waaw da nga am combat concentré wul rek. yii eh, yii dawul suñu yaram. moom moom di nuyu sama adversaire bu baax a baax di nuyu sa rakk bi. waaw champion bi Bourou Kaaf waaw Vieux Ngolo maa ngi lay bu baax di nuyu ñi nga àndal ñëpp waaw mooy di leen nuyu Ibou Laye waaw yow ñu nag yow ñu ko waxee rek yàgg na. waaw depuis saal boobu bëreeguñ sax sa ay tout tànk waaw xam nga ngay ñafe di ñafe kon boo ñëwee ba yegg ba nga ma woowee rek dafa am lu ma yegg yàlla am na ko man dama leen wol paa bi nga foofu noonu si kim naa Babacar di la nuyu mm-hmm. di nuyu bi yëpp mm-hmm. di fàttali seen liggéey si làmb tamit mm-hmm. di nuyu Monde Làmb di nuyu Médina Fass Gueule Tapée Colobane nga garaayof di leen bëgg bu baax bi préto di jaare waale imam bi vraiment affaire boobu waaw xam nga métti na ñëpp yàlla wax yàlla yërëm waaw Derklé de Marine Gasson Sénégal yëpp daal di jàll si Modou Niang aussi. Mm-hmm. waaw Modou Lamb di ko ñaanal yàlla xaare a àjjana. Mm-hmm. waaw suuf oyof si doom ak mboolem mbindeef. di nuyu ko waxee rek di jaabi ginnaaw yàlla génnee leen ba ñu tegwaat ci code. Mm-hmm. ndax nit ku xam nit ku juróom waaw di bëggee ñëpp daal. waaw di nuyu sama adversaire nag. di kontaan ci ko rek yow. waaw yàlla xam na ko. loolu la ci lu tax waaw parce que adversaire la boo xam ne tey. day dëggal boppam ci làmb. moom sax waaw te man loolu dama koy defee ci mbër. mbër du taxaw fee naan non yaay xale yaa war ñëw naa ne su ma mu ñëw te xam naa ne dañuy daje man ak moom. Hmm. incha mais man li ma lay jëkk laaj mooy ni mu duggee Dakar parce que Dakar boo guy gi doon te bool bool la mais baasam ku ne xam ne Medina dëgg la yaa ngi dégg dëgg la mbay guy kon leer na mu daan mbay guy gi jël bàyyi

yow man li ngay lim loolu laa lay eggali eggali tërdim ba pare lim day mat ah da nga koy eggali. non non ñëwagul Fall. mais dina ñëw bu dee. loolu ñëwagul kay de. gaa day ñëw day ñëw de. gaa gaa ngay xaar di ko bëre. yàlla xam na ne gaa gaa ngay xaar te dañuy yéen. gaa gaa ngi suba ñun. gaa gaa ngi suba ñun. yooyee bàyyi soo ko bëri man làmb ñu ma neex. man man làmb ñu ma neex. ana la yow jaaw na nga ma suuf non lii bëri la de Babacar doo ñëw taxaw fi amateur yi natt leen lii bëri acca waaw man damay ko ñuy natt man ab lébu la ma kenn du ma natt baaba toogal kaay toog kaay toog benn la neex man jub bu ma ko sentiré bu ma ko sentiré may jub eh, yow xanaa déggoo ma la wax kii maa ko teetee maa ko sama loxo la jaar. mooy maanaam xam ne dafa màgg. dëgg ma de. dëgg ma de xale. ku yor sa kuy ba màgg yow mu entraîné. maa jàngal di ko jàngal bëri. laa euh, nag mu la jàngal jàngal. denc loo xamante ni bu ëllëgee. <laughs> man ak moom mos nañ jaxasoo Sall xaw ma fàtte ko xaw ma fàtte ah. ko. ah booy. bari ki Serigne Saliou ko booy ko gëmee ko da ngay fayee war na yàlla dëgg la sax. voilà waaw léegi mu dem parce que nga defar nit. benn xale. di ko conseillé di ko yedd mu lay suivre nga koy woo entraînement chaque jour muy ñëw. mu dem ba bëreeg yow. loolu moo lay wan ni Zarko ñëwul Sénégal pour xaar kenn. dëgg man dama ñëw pour liggéey moom day liggéey dafa jot pour ñu fayeeku suñu jeunesse suñu génération ñu fayeeku parce que ñoom Balla ñoom Moodu ñoom Eumeu seen fayeeku nañ li ñuy fayeeku ba dem toog dafa jot nag ñun ah ñu yéenante jàmm ku ci nekk yéene sa morom ñu fayeeku donte dañuy bëri benn jour après bu jeexee jeex na ñu nekkaat ay guerre mu jeex mais làmb ji làmb la làmb la di gis bëre bu xam nga bëre boo xam day am ay étincelle. waaw waaw mën a xeex bu am étincelle de. bëre bu am ay étincelle. di nga ko gis. Hmm. lu leer la wax Babacar. xaala xaala mu jaani. bii maa mi xaala mu jaani wax baaxul. yaram bii dafa màndi bëre mën na ma xam loolu. Ah. xeexuma rek bu ñu waxee nag may xeex lañ lay ndax de. damay bëri si bul sax dem di jàng xeex jàngal bëri rek voilà dama lay wax de. wala yàlla ñaxaw dégg nga dañoo ñaxasoo woon man ak moom. ba ngeen jaxasoo waaw loolu nekkul de Sall. mais loolu nekkul. waaw boobu nag xam nga moom ak doole di ko toj. kii la comprendre nga. boobu dara dara ndax mu daw jël ma. waaw waaw lu ñu xaw a bëri foofu. te loolu yàlla xam na ne musul dañ sama xel. xam naa loolu. waaw musul dañ te te loolu noonu bokk na fi fi may jaaree jour ba ma joomal ko moom. non mooy yow loolu loolu li ngeen di ne caabi. mais yéen ñoom fàtte nga loolu. caabi boobu li ngeen di fàtte nga loolu génn na sa xel. fàtte nga loolu caabi boobu li ngeen di ne ñoo def. fàtte nga loolu yaa génn na sa xel. mooy bii topp na la de. <laughs> non kii ñoo doon ñoo doon entraîné chaque jour ko jëfee. Hmm. mu ñëw naan zar lan laay def lan laay def ak lan. mu ne ko defal lii defal lii defal lii wallaay azim tey ma ñëw bëreeg moom ma ñëw mu teel jóguma Europe ñëw fii def Europe cinq ans tey nii xam lépp Europe xam fa lu baax xam fa lu bon bàyyi fa lépp ñëwaat di di jaayante sama boobu ci làmb ji. non duube lépp te ñëw ma sax pour ay ay seconde kii dafa bokk ci yoon bi rek coono jëm. kon moom non yàgg na. Babacar déggoo eh, xam nga li ci neex fële. waaw dañuy teg micro yi waaw loolu ci gën a neex. billaay wallaay man ak Zarko gars yi dinañ gis lu musul gis. billaay wallaay mais mais Dieng boo xoolee fi mu jaar ak mbay bi jaar ak aada Fass te ñooñu ñëpp say dëkkandoo. kii kii kii li ma xamee moom xamee kii kii xamuma sax. billaay wallaay maa la gën a xam. billaay wallaay xamoo ah, ma ah xamoo ma waay. yow yow fàtte nga ma xamoo nga foofu waaye yow gën a. da nga koo xam ni. maanaam hmm. si gën a neex nag wax na ko ci pare nga Zarko pare nga. Ah. loolooy làmb ji mën naa la wax sa bombaay yëpp ku ci nekk noo ko daal wallaay yow yow yaa Pamuro yaa ngay fàttali yaay fàttali yow Pamuro nu mu daan mu daan fàttali ko lu mu fàtte yow Pamuro yaa ngay fàttali teere gaal gi waaye wala ma fii nag tamit fàttali ko waaw yaa ngay fàttali ko fàtte dañ bëree ñoom ñaar mbapat moom mu daw jël sa waay xam nga sa waay xaw ko prise combat bi am coow li si topp sax man ak man ak Pam Morlo. yow Pam Morlo gaal bi. tere gaal bi non boobu egguloon. waaw boobu egg moom laay nettali. non mais boobu eggul. boobu maa ngi foon taxaw di la xool. waaw coow moo ko yàq. si coow moo ko yàq waaw laa ko jël tas. parce que Pam Morlo dafa ñëw ci eh, promoteur bi ne ko soo ma sama xaalis su matul du ma bëree. ma dugg sama gars yi dajale xaalis ñëw ne ko am. waaw ne ko kaa ñu bëree. <laughs> mu ne nag cercle maa bëgg réew <laughs> kenn daw. ñu tëggaat làmb ci parcelle. benn promoteur bu dëkk parcelle moo ko bëree. moo ko tëgg xam nga lu ma bëreeg Pape Morlo épaule bu tàmm walaay bii soo du ma bàyyi ma fenn moom bu dee suivre na ma kon du ma bàyyi ma fenn Pape Morlo benn loxo laa bëreeg moom sama épaule bu muy dàmm musuma ko wax si àddina Modou Lo moo ko def kii xam na li may wax boobu mi ngi boobu mi ngi bëreeg mi ngi préparé combat mag euh, Issa Pouye je moo mais waa léegi naa yées ko paase jël bu yéeme. booy yàlla xam na ne bëri yow dafa maa neex école bi école bii. kay nekk bëri kii neex moo daan mbay moo daan mbay bii moo daan daan moo daan ñëpp te bu neexee yàlla moo lay daal. incha allah bés bu ñëwagul. daan kii billaay walaay ñëwagul. jafewul. jën wi sarax jafewul. sarax sarax bi lan la. mbuusu meew la rek ak sonde. <laughs> buusu meew sondal juróom rek ak ñaari guro yu weex billaay non yàgg na Babacar bu war bi sifflé sama diggante ak ko képp kuy amateur la am sa xol dina sedd yàlla xam na ko mais jël jëme na kii de ah yow tamit kii kii dama ko xam kii kii waaye ma ko xam dina ma koo xam bu baax a baax a baax xam ñeneen jén yow saaru meex sedd rek yooyu nga xaw ah, yow meex sedd yow da nga ne cell rek waaye moo ñu gënal yàlla xam na ko waaw day faana da ngay tàng ci géew de waaw ah, xam na c'est normal ah. yow ma tàngul gars yi dox sa kaw ah daa ma gën a xam kii baadu suuf dégg ko ne du géew du bii bii mooy gën bii mooy gën a bii laay gën a yëngu billaay wala tàng te xam nga lii neex baax du doon ay si avant lamb bi de maa lamb bi may naa ko. mais bu war bi sifflé maay maay diriger kii jëloo yooyu yëpp. kii maa lay diriger. non yow yooyu yëpp jëloo ko man ki may diriger judoogul ci làmb. yàlla xam na ne maa lay diriger bu war bi sifflé maa ngi sa kaw. xaw ma man lan mooy sama problème. man mënuma mënuma ay ma fecc moom. waaw ah man man damaa mën fecc. mënuma ay waaw laa mu bëree la bëree. xeex moom mën naa. laa mu bëree la arbitre sifflé man ak yow. man man moom xeex laa mën man mënuma leneen. xaw ma man damaa rax njaago di xeexu njaago di jeex. jour baa xaw ma ban jour lay doon àddina mbindeef duñu tëj géew nu may dirigé man. billaahi wallaahi taalaay dama lay dirigé yow. bul waat loolu du am. billaahi dama lay dirigé. bul waat foo taxaw dama la fay fekk. nga ñëw ñu daje loolu mën na nekk. doo yow doo ma fa fekk. te nag ku nekk yow doo ma ngi fekk. non mais yow. yàlla ñaara dafal jàmm ba jour yii yii mis yii mis naa yi yàlla ñaara dafal jàmm. sarax yi mis naa ko. <laughs> jaaxal ma dawal sama yaram. Babacar. dawal sama yaram. micro bi li muy wax dëgg la de mën na nekk yii mën na daaw ba daaw ah, yaram yow tam yow mais Zarko ay dëgg la ko Sénégal teg ak ñi ko li muy yéeme yéemelu di yéem gars yi bu dawee sama yaram lu toll nii yàlla ma daan yàlla ma yenn ba taxaw doxoog man ba fu ko neex bu dawee sama yaram lu toll nii sar billaay walaay taalaay dama lay daan dama lay daan boo dawee sama yaram yaa nga ma tax billaay walaay dama lay daan ah, man dara fokkul samay bët dama la dama lay daan billaay walaay taalaay dinañ wuree man ak yow moo bokkul niveau bi du benn quoi. ah léegi ah, ah. yow loolu la gis yow. non gis ma loolu yow la <laughs> yow xam nga baax li mu lay wax. baax na kay de xam nga li mu lay wax baax na laa la wax niveau bi du benn. baax na tey mën ak yow rek xam nga niveau bi du benn. billaay wallaay daal mais nag kii nii mënul ñaax. waaw ah, dëgg la waaw parce que kii dafa fay xaalis. il nous a payé des millions. waaw dégg naa sa kase bi nga mujj a bëri. non non dégg déggul ma catu macha allah. <laughs> yaa ngi dégg. dañu fay xaalis dañ ñëw pour bëree yaa ngi suñu bés nag damay ñaan li laay war a suuli ñi nga xamante ni ñu ngi ci réseau sociaux yi bu ñu yàq image yu làmb ji bu ñu fi nekk di ñu gàkkal wala ñuy naan kii ni muy waxee wala kële mm-hmm. li ñuy wax lépp pour jaay làmb ji la ñu àdduna bi yëpp xamee ko noonu waaw na wax lu ko neex man ma wax lu ma neex ngeen comprendre ko noonu xam ne dañuy jaay suñu bés parce que dañu fay pour ñu jaay bés bi te bés bi mooy dàq ci bés yëpp bu yeboo làmb waa làmb xamati problème ju dóoti na voilà garaawul borom xaalis bu la laaj passeport booy loo dégg balla balla ba moo ñëw borom xaalis bu ragal pansement borom xaalis bu ragal pansement ah, léegi amatul doo xool yow dafa mel ni xooloo de yow xippi woo de Zarko Zarko xippi woo de xippi woo ba jël avance bi yow lu leer naa la ila a naatee bone i puyoo bo jël avance bi mbii mi a naatee bone de kena cungkanko fala bo damonga rooga anda ye bo damonga bo damonga sa ngandoɗo to naatɗa wallahi l asim a yaaaaa oxena yaaga mo ndig oxe leya rooga anda ye bo damonga bo damonga lay wala damay champion wu ci kawam de kii man damay champion wu ci kawam kii yow de <laughs> kii da ngaa laaj kii da ngaa laaj kii lu mu ndax c'est normal. parce que c'est son mais c'est son sang. lay wax bu ko waxul bu waxuloon lii kon dañ ko fiy xas. nit ñun ñëpp ay Sénégalais la ñu mel. nekk da am si ethnie. dëgg la mais boo boo boo mënul wax nag yow li nga doon. kooku yow yaa fay waaye direct. dëgg la mais ñun lu ñu doon dañ koy wax yow on est fier d'être pël. moom aussi il est fier d'être séeréer mais c'est normal. Babacar. Hmm. Dibulaay dëgg nga combat boo xamul yow. Dibulaay kay dëgg. bon waxuma ci préparation ngay bàyyi. foofu moo eh, eh, ngay bàyyi ma jël ko. mais da ngay nu ñu ci bëri bi ci xeex bi da ngay bàyyi. lu leer laa la déggoo la ma la bu fekkee yow war nga ma bàyyi loolu ndaw li yàlla nga ma tànn sax ko oh. wala déggoo ma yow. amiin amiin. gën wala déggoo ma. déggoo man la amiin. amiin. loolu la dama dama xam bëri eh, eh, man dama xam bëri li muy bëri dama ko xam mënul bëri lu ma ump lu muy xeex dama ko xam mënul xeex lu ma ump waaye. waaw yow tamit. wóor na yàlla dina am lu ma kii day bëri ma toog sama booy di décortiquer bëri moom mii yow tamit. c'est-à-dire comme danaa la bataille psychologique la nii la foog mu jéem a dox ci maayanu booy bi nag mais booy bi daa màgg ngay ne Fall booy bi daa màgg. loolu tamit wala. man de loolu laa doon damay nga ma jaarale nii jaarale nii. mais man lii laa doon ñaanal diggante bi nag. man lii laa doon ñaanal. am naa loolu baax. waaw bu paree bu paree yéene la ko aussi. bu baax. parce que Serigne Saliou man ma jël la yow ma gënal ma jël keneen. yàlla xam na ne xam naa ko. naa loolu. yow it sa retour ba nga ñëwee di tàngal di leeral loolu dama kontaan. xam naa loolu. bilaay walaay. mais loolu mooy parce que mérité nga loolu am na loo def ci làmb. loolu dem nga ñëwaat nga sa place mu ngi fi. du tey comprendre nga. loolu mais mais mais garage baa ngi nii. loolu moo lay looloo lay wan nii nag. loolu moo lay wan nii waa yii. bu dëgër boobu la. waaye dëgër boobu man waaye yow. man nag ñi dëgër boobu laay wër. waxtaan ak ñoom teg leen ci code. damay tegle tànk rek. comme waaw neex a ngi nii. daanaka ñoom ñëpp tënk nañu waxtaan bi yaakaar naa ne yombalal na ñun journaliste yi liggéey jël ñuy laaj mën na leen a bàyyi mais li ma leen di laaj pour ñu dalal seen xol supporter parce que fii ku xam ne jëppal derkle si def mari si de aseg naa ba xaar yàlla te grand yob la te kii tamit donc seen la fa la juddoo nan la ñuy dalal xel supporter parce que tamit am na ci nit ñoo xamante ni ñoom ñaar ñoo ngi toog di foo di tax di ree jël seen avance yóbbul ko seen waajur yi. ñi nga xam ne ñooy yeewoo si gànnaaw derkele xaar yàlla bu njëkkal ba tasoor lan ah man moom man moom wax dëgg yàlla maa ngi ci sama ba ma commencé làmb ba léegi gëw ma ne mos naa ñëw ci làmb bi buubee. booy waaw parce que ñun sport la ñuy def. te booy li muy wax nii dafa leer booy ñëpp xamante. ñoom ay kii ñëpp ñooy génne chaque jour ñëpp xamante ne nice. kon bu dee côté boobu moom non bul wari jàmm ak salaam rek mooy am incha allah waaw moom moo ko daanee rek gars yi nangu rek dugg côté. mu gunge ko ba gànnaay mooy loolu. su eh, li ñëwee lu am solo ah. Hmm. su li ñëwee lu am solo. loolu liñ ci wax rek mooy que ni l' ensemble zone 7B xaar yàlla liberté 6 gang gi gaal gi doole lew na ñëpp amul xuloo amul xeex amul werante mais am na werante. bu la neexee werante bu la neexee teg sa xaalis bu la neexee teg lu la neex. amul xeex amul dara dara dara. Hmm. affaire bi benn xeex la xeex bi benn la man la ak Diène Kaïré te loolu bu ñu xamee date bi la jour ji ak heure bi ak waxtu bi xeexloo wuñu ma sàmba ci mbedd xeexloo wuñu ma demba ci mbedd ku mu neex nag ci mbedd nga werante ku mu neex ci mbedd nga teg sa xaalis non à la violence woowuma kenn ci violence Diène Kaïré woowul kenn ci violence làmb bi ñun euh, maanaam boog waa zone 7B la dañu war a wane un bon exemple ci fànn yëpp maanaam jarul xuloo mun nga sax xuloo garaaw parce que làmb la jar na werante mais jarul xeex jarul jarul dara mun ngay werante ba suba xuloo ba suba mais jarul xeex bu ci kenn xeex muy sama côté muy côté jénkeere benn xeex la muy jour ji man ak jénkeere mu neex yàlla ak bi soufflé <laughs> bu seet buy bu gën a nooy bu aada faas bi laa mooy daal cent pour cent maintenant maa ngi profité di leen woo. dinaa ko tas de. cent pour cent maintenant bàyyi ma nga génnaat. déggoo li ma la su ma jur nga jëm. Zarko eh. Gaynde su ma jur su ma jur ngay teeree yow. loolu amul sikki sàkka. su ma jur de su ma teeree. ma teeree su ma jur. su ma jur ngay teer su ma jur su ma teeree su ma jur. su ma teeree su ma jur. damay dugg sama kër maam. Soumbédioune su ma fa teeree man. dama ne la su ma teeree Soumbédioune. Soumbédioune man dama fa am ay gaal. yow xam nga benn nga wax. man ay gaal non su ma ko teeree damay dugg sama kër maam. gaal bi ngay yëg su ma teeree su ma jub damay dugg kër ulle yiw. loolu c'est normal. dama lay wax loolu la. ñëw wax mais weer kooku am kenn amul lu ci yéen. weer kooku laa lay wax nii. waaw. ah yaa ngi def ak jëndër. man maay borom yàq jëf ci déet buy salaam ngot man la. xam nga loolu yow. surtout ulle yiw. surtout ulle yiw. waaw ndeysaan. la surtout ulle man. dëgg la. sama maam ku am ku am kër biir Dakar. sama maam moo la jox terrain man. moo tax ngay yëg ci gaal bi dama la sama maam ku am terrain ku am kër biir Dakar sama maam moo la ko jox man te loolu kenn du ko dindi. <laughs> man la surtout la yiw man. waaw. ayca Ibrahima loo ko loo ko laaj Ibrahima. dañuy gis yenn promoteurs yi bu ñuy ñëw si làmb dañuy commencé ci combat yu ndaw yu cent mille cinq cent mille quatre cent mille. un million ñoom ñoom seen kase un million la bu ñuy doog a ñëw mais dañu gis mu ñëw décroché Mor Kankan ak Youssou Ndour ñu ne déet waaye mu teg ci combat bi ne aussi tamit mi ne dafa am ku nekk ci ginnaaw lu ko jàpp dëgg laa ko waxee rek làmb ji moom yàlla mooy dogal rek nit mën na ñëw am moyen tëggu yaawu jàll comme nit mën ñëw am moyen tëggu waa des arènes yàlla mooy classé quoi yàlla mooy classé noonu ñun nag yàlla suturaal nañu ñëw nañu am fenn fu ñu mën a tàmbalee mooy si digg bi peut-être wala juste si demi bi du dëgg donc euh, loolu mënul ñàkk di bëri ay kese mënut a dem bien sûr am ñu nekk si ginnaaw mais yooyu à suivre la pour l'instant nii dañoo ñëw pour def présentation ñaari mbëri pour xam pour xamal Sénégalais ñi leen combat bi taxaw na mais bu soobee yàlla affaire yi lu muy gën a dem di ngeen gën a xam li nekk ci biir mais nank nank quoi moom ñu tëb rek wax lépp waaw incha allah. mu gaaw rek waaw. Euh, sama question ñaari mbër yi laa koy boole beneen bi pour Zarko la parce que Sénégal lañ nekk am li nga xamante ne aussi moom ci ay tuuti euh, dañoo bëgg a xam. déet waay. jar na wala ay ma calcul naxe bi rek eh nante la day naxe. jël ma calcul bi rek. non man gëmmu ko de est-ce que du ma ko calcul football bi rek. kii jaru ay kii. yow maa daa xool bokk nañ say accès nga fàtte. yow moom seen gars yi maa daa xool seen gars yi waaye yow man daa nga gars yi yow yaa yaa war a ku ah ku bi niroo. yow moom nan la ñuy bokkee nan la ñuy bokkee. waaw waaw waaw gars yi nan la ñuy bokkee gars yi. yaa mën a dem kii contrôle la de pousse de Fouba daal. Fouba sëñ bi yàlla koy waxee non waaye waxal waay. fekk ko si yoon waay tamit. yow ak Sathiès. non non Sathiès benn accéléré def. te arrière cuisse bi ne tëf mu génn yow nga contrôle dàq bal parce que man la jaay ma parce que boo xoolee làmb ji am licence licence professionnelle amul. man ah, nga sama làmb ak Siteu man moo ma génnee ci football à ah, vie boobu lañ ma ne da ngay décider. da ngay football wala da ngay bëree boobu contrat wu Siteu mi ngi taxaw ko ànd ak xaalis contrat wu Yégo mi ngi taxaw mais ànd ak xaalis yaa ngi dégg comme que ñun nag yàlla def na tuuti dañoo bëgg fii def na sonal ñu jël ñu jël. walaay bàyyi bi bàyyi bi waxal chaque fois moom a génne moom a génne ci ci ci ci ci bëri. walaay yàlla si mag Zarko. lu leer la dama kontaan ci combat bi. léegi léegi dama bëgg balaa ngeen tàggatoo. waaw. war ngeen mën a toog. waaye naa kii lu mu bëgg kii lu mu bëgg kii lu mu bëgg yàlla na jàmm. non moom lu mu bëgg laay walaay. mu mu kaay kaay taxaw nii. mën naa taxaw ci liggéey. non côté Sarko lay taxawee. taxaw fee taxaw fee. waaw. voilà. père père kay rek ziar nañ la xoolal nga père li dafa rafet. macha allah waaw di leen delloo ziar rek li day wane nag sport. Mm-hmm. dafay boole baru baru tàggale. Mm-hmm. buñ déggee ñaari ñoom ñaari buñ waxee xamante ne bi boobu kii tout tànk la donc yàlla di dem ba boole leen. li ci nekk mooy damay félicité saa aussi parce que xam nga làmb euh, ñoom ñooy mayante xaalis parce que toog na deux ans bëriwul mbër bu ñu ko wax ni wiiri wiiri di wiiri bëri kii ñëw nangu jël ko bëreeg moom loolu dafa am solo parce que ak ci juróom fi xaar ñun am nañ vingt ans vingt cinq ba tey ñu ngi si de cinquante ans kon nga xam ne sport dafay du la fi xaar di wax ne rek ñu joué ko ci fair play ñoom diggante yéen dafa am dafa am ay supporter euh, Grand Yoff dem xaar yàlla jàpp Derklé aseg naa ba foofu moom it dafa am ay supporter Médina Fass partout c'est-à-dire c'est le Sénégal te ku ci daal du génn Sénégal contrat bi ngeen ñu def ko nu mu gën a rafetee sigil le promoteur parce comme ni nga ko waxee dafa génnee xaalis am si ñoom confiance kon bu jour ba yéen ñaar ku ci nekk incha allah na nga état indi état leer nañ sama ñaari doom lañu nag. say doom la ñu. samay doom ah, <laughs> wax dafa wax ay maamam yu nekk fële ca Medina. Mm-hmm. mais Diène dafa am ay maamam yu nekk Grand Yoff. maam Ngor Sarr. maam Ngor Sarr sa Grand Yoff. ñooñu sa samay maam lañu suñu cosaan la Medina lañu jógee dem Grand Yoff dëkk fa. kon moo tax Sénégal boo dóoree nit sax dóor da ngay dóor nit nekk di sa deret nga dóoral sa mbokk mais nañ ko teg si cadre sport rek di prôné loolu euh, xam nga violence parce am na lu ñu seetlu islam léegi xale yi nañ bàyyi simon li ñuy def après combat nañu bàyyi simon yi après le combat am na ñoo ne ñu naan ñu dañuy gàmm ñu di raas démb waaye nit ñi bàyyi nañ bàyyi raas démb bi gàmm di ci am ci am yàlla di am yàlla di am ci mais làmb tas la ngay xool borom iPhone 6 yeeg am ban iPhone moo xew léegi nañ bàyyi yooyu baaxul bàyyi yooyu yooyu baaxul yooyu yooyu daal ñuy ñaan yàlla yàlla ko daal jële fii ci réew mi quoi xale yi am ay ambition liggéey xam ne ku si nekk ëllëg loo fi def ëllëg bu ëllëgee dañ dee dafa am di profité sax di nuyu Serigne Modou Niang di ko di ko jaale Serigne Modou Niang doonoon ku baax xale yi nag rafet nañu de demul Serigne Modou Niang bii non xale yi nga xam ne xamaguñ leen sax si làmb rafet nañu waaye di ñaan Ndiaga Niang son fils. yàlla na jël yan bi ak liggéey ba papam quoi. amiin vraiment loolu laa amoon li may wax xam na nag làmb ji làmb jànq la comme ni ñu koy waxee ñoom ñaar yëpp kon si yombal sa morom nga nax sa bopp. du yomb de. combat bu combat bu yéeme ñoom ñaar nañu bëre parce que xam naa leen ñoom ñaar ñëpp kii gaynde lu raw yéen it gaynde lu raw Koppati bébé jël nga koppati père koppati bébé jël bi ngay waaw yi sax woon kii kii bébé jël bébé jël dafa war a jongante incha allah le onze bi di ñëw waaw waaw di wax samedi bi di ñëw incha allah di invité nag presse bi di félicité aussi Assane Ndiaye vraiment mi dinaa créé benn mille pour cent 1000 francs pour change Médina dañ ko créé. c' est une première à la Médina donc bébé Diène moo war njëkk a déparé pour change bi. donc di woo amateur yeeg supporteur Médina moom je pense que ne bii pas cette fois ci affaire mobilisation moom jeex na ku gis lu yéeme ku ñëw nag kat bi nga xam ne ñaar ñi si war a jomante di nga gis lu yéeme. jaajëfal gars yi nuyu naa ñëpp sant ñëpp. jërëjëf alhamdulilah bisimilah Seydina Moussa. Modou dafa fekk ne gars yi xam naa yàqam nañ affaire bi ma kii waaye sama gars yi naa li fekk ci combat bi na woon fa woon supporters yi li ma leen di wax na woon fa woon ne yéen gérer leen ci kaw gérer leen ba ci kaw rek mu neex si suuf moom bu leen wax waaw boog leen séeréer foog ma xëy sëm na anum xooy anum donc maa ne jëg ma mi fa sar ko ajuma dialoog nu ndam teen a paax a paax a paax waaw nun foop nu ndam teen daal incha allah di profité rek di nuyu sama mbokk xaalpulaar yi onoon bandiraɓe xaalpulaar en min beltimoni no feewi on jarama allah jarama min heeɓi combat minen e euh, jinkere ñagane men allah dokka men victoire belɗo e dow makko e yen ñam képp koo xamante ni suñu mbokk njaago yi ñu leen di wax ni am nañ am nañ bés ñu nag Diène Kairé di woo suñu mbokk njaago yëpp suñu mbokk séeréer yi joolaa yi. Ah, Fapal yi waaw tamit maa ngi leen di woo ñoom eh? ñëpp. waaw Sangal Kamba bi loolu ñëpp. waaw di woo gars yi ñu ñëw jàpp si. waa Ziguinchor tamit Rio ñëpp. waa Grand Yoff l' ensemble zone 7B de Grand Yoff. di woo ñëpp ñu jàppale ñu ci làmb ji. Eh? di ko wax eh, Yves Braille. ñu ngi lay xaar bu baax a baax Cheikh Kouyaté. ñu ngi lay xaar ci làmb ji. waaw Ousmane Sy tamit ñu ngi lay xaar cause mobilisation bi. monsieur monsieur Madiop. ñu ngi leen di xaar aussi ci làmb ji ngeen di jàpp si. di woo di woo biir eh, biir di leen di leen wax ne xam ngeen ñëw jàpp ci làmb ji bu oh baax parce que mooy loolu am na foo xamante ni foofu boo ko bëggee egg foog nga pare ko sur tous les plans surtout ah euh, sama xarit sama lonko Momar Momar Bouba Diawo ah Fadam ah ñoom Sadam ñoom ga sama booy yëpp daal bàyyi ma kenn Fourmouse ñoom Fourmouse xam ñu ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp. ngeen ñëw ci làmb ji quoi parce que zone 7B la leen nag li laa war a sóoli da ngeen jëndal waa zone 7B ñëpp ay billet ñu dem seetaani làmb ji. amul ji baax a baax a baax.